asalaamaaleykum asalaamaaleykum jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne tuubaa jaral ak maam Cheikh Ibrahima Fall mbokku taalibe yi maa ngi leen di leen jégalu bu baax man la bàmba fan yii nag cool yi bëri na lool waaye cool yi lépp maa ko waral njumte rek te ndoolaa ku dul jum amut te amaana ña di yàq te sëñ bi yebul leen ñooñu laa doon waxal. mais fii nag Sénégal da ngay wax nit ñi yóbbu ko foo xam ne yóbbu ko foo xam ne amaana yow foofu noonu man Touba laa tuddee ma Serigne Bamba kon man awma lu may dox si yoonu murit di si wax naka sulut noonu suñ mënut a moom dëkkam ndigal jëfe sëñ bi bu soxlaa ñëpp dañuy ñàkk yàlla xam na ne wax ji ma wax waxee ma ko pour ñàkk yar waxuma ko pour ñàkk taalibe njumte la te ba ma ko waxee pare rëccu naa ko xañ na ko ko dugal rek moom moo ma jaxaseeg àdduna bi. mais man Baye Fall laa taalibe jël lenn lu ñaaw di ko teg si yoonu bi ma ngi jégalu ñëpp di jégalu suñ Mountakha Mbacké Bassirou di jégalu khalifa Baye Jaar général de bay Fall di sama mbokku Baye Fall sama mbokku taalibe yi njumte la nag maa ngi ñaan ngeen jégal ma rek te yàlla tax xam ne jum nit nak matul kul jum amut wasalaam jërëjëf